di téere boo xam ne nag mi ngi jàngale jëme ci fànnuk tasawuf mooy fànn gi nga xam ne ci la nit ki mën a sukkandiku ak xam-xam bi nit ki mën a ngir defaru ci digganteem ak boromam ay jëfam di sell saa su ne lenn bañ a rax ay jëfam ci lu yàlla gërëmul ñu fas ko nag def ay pàcc ñu nekk ci pàcc bu njëkk bi xaaj bu njëkk bi mooy tàmbali téere bi sëriñ bi bi mu waxee ne bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman tàmbali ci turu yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ay ñooñam ak ay sahabam daal di sërmal téere bi nag di maxaaliqu niiraan wa mafatihul jinaan kànnaari sawara xombi sawara yi nga xam ne day tëjal nit ki bunti sawara yépp te koy ubbil bunti ajana yi loolu mooy tuuru téere bi mu tàmbali nag ki di sant yàlla ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak salmal ci moom yonente bi nga xam ne moom moo tëj mboolem yonente yi moom moo ci mujj a waaye it mooy seen imaam moom moo ci jiit moo leen jiite ñoom ñëpp daal di ñaanalaat saxaaba yi ak ñoñam daal di tàmbali nag ci ne na ngeen yëg ne daal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom lam nekkoon fi mu ne nëbbu na lool làqu na lool dara warul lu làqu googu nag lu gu bari gi réer gu bari gi daal moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon fi mu ne làqu na nëbbu na saxaaba yi àndoon ak moom ñi nga xam ne ni boroom njub lañ boromi leer lañ ñooñu it lañ nekkoon seenu doxin réer na seenu doxin nëbbu na ngir réer gu bari gi sëriñ su baax si borom ragal yàlla yi da borom xam-xam yi waaye sax yi ci xam-xam te dëgër ci xam-xam doon nit ñu baax sëriñ soos ñoom it seeni jeexit ak lañ nekkoon nëbbu na ngir réer gu bari daal di tàmbali nag mel ne koy delloo si nit ñi ci loolu nga xam ne nii ci la sallallahu alayhi wa sallam tam réer tam nëbb mu ci delloo si nit ñi mu tàmbali ci ne képp koo xam ne da ngaa bëgg a yegg ci yàlla da ngay sàkku ne da ngaa bëgg a yegg ci yàlla ngoyal ngoyal ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te nag wut aji topp yàlla joo xam ne du jeng mukk ci saahir ak kibaatin du jeng yoon mukk du wàcc yoon wa ci saahir ak kibaatin nga wut ku mel noonu nga taqoog moom kooku boo ko amee mu di la womat ci xam-xam ak jaamu yàlla ci noonu it na la ne la lay bàyyiloo aada aada nag mooy li nit ki baaxoo def saa su nekk bu añ jotee mu añ bu xiifeeg bu xiifut bu reer jotee mu reer bu xiifeeg bu xiifut bu tëdd jotee mu tëdd bu gëmentoog bu gëmentuwut loolu nag nit ki da koy daal di bàyyi to lekk lu dul ngir faj lor sañuta tëdd lu dul ngir faj lor kon aada jooju kii muy taxool da koy bàyyiloo aada jooju kon daal ku bëgg yegg moom sëriñ bi tënkal na la yoon wu gaaw ba ci jiitu mooy ngooy ci sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam taqoog aji topp yàlla joo xam ne nii du wàcc yoon wa ci saa ak ci baatin aji topp yàlla jooju nag day wama nit ki jëme ko ci xam-xam xam-xam yu am njariñ di ko ko jàngal ak di jëfe xam-xam yi mooy muy jaamu yàlla ci xam-xam boobu te di ko bàyyiloo aada sëriñ bi daal ci teg képp koo xam ni nga bëgg a beru da ngaa beru te àggagoo ci yàlla àndoog sëriñ bu mat sëriñ mu di la yar di la jubanti amoo say xol mu rabbi bu mat sëriñ mu di wan yoon wa ba noppi àggoo ci yàlla ne da ngay beru nee na kat mi ngi xuus ci géejug alkane te du ci dara benn résultat daal du ko mën am ca berom googa te mi ngi xuus ci géejug alkane géejug alkane moom ku ci xuus lu nekk mën na ko caa fekk li waral loolu mu ne ndax kat saytane koy wommat ak banex ak bakkan saytane ak bakan ak banex na ku ñu womat mom duñ la jëme fu bax kon dal kenn señu la beru lu dul ne dafa ag ci yalla wala mu am sering bu mat sëriñ bu koy wan yoon wa ag ci yalla nak sëriñ bi mi ko ko laaje nim ko firé moy dem ba mbir mu mëna doon do ci gis ku dul sunu borom sëriñ bi di delu ci di ne képp kuy aji yeewu wala képp kuy aji gàtt xel moo xam ku am xel ak ku amul xel ñoom ñëpp war nañoo maase xam ne lépp lu wuuteeg dëgg képp ku wuuteeg dëgg dañ laa war a wan ginnaaw su la ànd ak mukk ku wuuteeg dëgg daan ne dëgg nag mooy jàmm bi tàmbale mbiram ci tawhid ju sell ak fiq ju sell ak tasawuf ju sell waaye nag mu awee ko ci ngirum ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa mooy mbooloo ma nga xam ne fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tegoon tànkam saxaaba yi tekki seen tànk foofa lañ teg seen tànk mu ne jàmm faaw mu sóobu ci ngir moomu amee tawhid ju sell fiqh ju sell tasawuf ju sell te sóobu ci ngirum ahlu sunna wal jamaa waaye loolu balaa mën a am faaw xam-xam am ndax nit ki bu xamut ba noppi la bu du xam lu mu doon moo tax sëñ daane na ngeen gaaw nag jëm ci xamlu jëm ci xam-xam yéen ñëpp. waaye nag xam-xam ba na ngeen koy sàkku ngir yàlla moom daal na ngeen dem wuti xam-xam gaawatu wuti xam-xam te jublu cee jublu ko wut ngir yàlla bala ngeen a seexu di beru wala ngeen beru ànd ak mbooloo ñu topp ci seen ginnaaw na ngeen wuti xam-xam ba noppi kon daal see kenn sañu ta beru lu dul ne daa am xam-xam bu wér kenn sañu ta toog fële di woote mbooloo lu dul ne daa am xam-xam bu wér te xam-xam ba way bam koy sàkku mu sàkku ko ngir yàlla ko amul xam-xam kat ay bidaa rek lay top. te sëriñ bi nee ne bidaa kat boo koy topp lëndëm lëndëm yi ci top yi nekk ci topp bidaa dafa lay xañ leeri top sunna lëndëm lëndëmi topp bidaa dafay xañee leeri top sunna mo wax ne nag ko xam da tere sàkku xam-xam na ngeen xam ne kat téereem googu ci réer képp la jëm ci réer la askanoo ci réer rek la leen jëmee képp koo xam ne ni mi ngi tere sàkku xam-xam ci jamono jii kooku woote na jëme ci bidaa bu ñaaw a ñaaw ndax jëfkat bu ënt ak xam-xam ak yàq dana ko rax daana xam-xam ak jëfe xam-xam ñaari wurus lañ yoo xam ne ñoo a andil nit ki yiwu ak yiwu alaxira ñaar yooyu nag ba ci gën a tedd mooy xam-xam moom moo war a jiitu képp koo xam ne nii day jëf te tegu ko ci xam-xam jëfam ja bu ëllëgee pënd bu wasaaroo rek lay doon waaye it képp koo xam ne nii am na xam-xam te jëfewu ko moom mbaam mu yanu ay téere ñooyam mbaam kat bu yanu ay téere lam yanu bari na njariñ lool waaye ab coono la cay jëlee ndax moom jëriñoowu ko moo tax mu wax ne dee leen sàkku xam-xam ngir yàlla bu leen ko jubloo sàkku ngir di wër ay débat di ci débat ak di ko puukare woo weranteeg puukare daal bu mu leen ko tax a sàkku mukk bu leen sàkku xam-xam ngir nit ñi wut si leen waaye bu leen sàkku xam-xam it ngir nit ñi di leen joxe ay addiya daan ne képp koo xam ne nii da ngaa sàkku xam-xam ngir ñi yii ñu tudd sa jëfkat yaa ngi ko jëmee yaa ngi yaa ngi ci mabbu sa diine yaa ngi mabbu sa diine ci sa jëf jooju nga jëf mooy da sakku xam-xam ngir di ci weranteeka pookaréewu ak def ay débat baa nga sakku xam-xam ngir nit ñi jub si jublu si la baa ngay sakku xam-xam ngir nit ñi yëkkati ay addee jox la ko mu ne ku def loolu daal jëfam ja mi ngi ko jëmee ci mabbu diineem te it jaay na ko adduna te loolu moom dara jëru ko tey jëfam joojee sooy na sànku na daa meloon ne rek ku doon commerce ba perte ca commerce ma ku doon jënd ka jaay ba perte ca loolu rek lay nduru te ki nga xam ne nii xamal na ko te bi mu koy xamal wóor na ko ne kii xam-xamam bi lii rek la ci nar a def kooku it dana bokk ak moom mooy googee mu moy mi ngi mel ne rek ko gis agresseur addu kalpe mu wóor ne leen kii ab agresseur la mu muy jënd ngànnaay lu mel ne jaay si nga jaay ko ko bakar bam ci am sel jaj jojo moy loree bakar bam ci am yow ko jay dang ci bok dang ci amale noonu nag la demee ki nga xam da fay saako xam-xam dal ngir di puuk rew ba aduna rek tax ko jog ki ko xamal momit dana am ci bakar bobu yi sëriñ ne bu ngeen demee bay saako xam-xam na ngeen ci jublu ñent mbir rek ngeen ngeen mana taxé ci ak njub ba ca jitu sàkku leen xam-xam ngir génn ci ak leer génn ci ak réer na ngeen sàkku xam-xam ngir génn ci ak réer boobu moo ci jiitu ñaareel ba mooy na ngeen sàkku xam-xam ngir jariñ ci mbindeef yi ñetteel ba mooy na ngeen sàkku xam-xam ngir dundal xam-xam ñeenteel ba mooy na ngeen sàkku xam-xam ngir jëfe xam-xam bi xam-xam bu ñu demee ba kenn sàkkootu ko xam-xam day dee dootul dund kon ki képp kuy sàkku xam-xam yaa ngi dundal xam-xam loolu mooy ñetteel bi kon nañ sàkku xam-xam ngir dundal ko ñeenteel bi mooy nañu sàkku xam-xam ngir jëfe xam-xam bi mu ne ko ñu wax euh, sayidi saruq def na ñaari bayit yoo xam ne képp ku ko dégg danga ci defaroo sa saruq daa wax ne képp ku sàkku xam-xam ngir di puukaranteeg borom xam-xam yi way dégg fiq yi walla nga ci weranteeg way dese yi nga xam ñoom sax xamuñ nga ci weranteek ñoom wala nga sa xam-xam ngir am daraja ci nit ñi nee na kookat boromu fallas la te lolu dana ko yobbu sawara fallas nak moy kuñ saisir ku ne ci adina di jëf-jëf ju baax boole ko di tooñ nit ñi ak lek seen ak lek seen alal mu dem ëlëk yomal xiyam ñu xol jëfam ju baax ba mu wara a ñim daan tooñ ñim daan lek seen alal ñim daan yaq seenu der ñew taxaw ne ko dang ñuy fay yàlla ne ko jëlal ci sa lu baax lii nga fay leen mu jël ci lu baaxam di leen fay ba lu baaxam jeex te bor yee matut yàlla ne ñim ameel bor jël leen seen lu bon di ko ko jox ñooñu jël seen lu bon di ko ko jox ba mujj dis gan nag lu bon nga xam ne kooku dafay mujj dem sawara wal iyaazu billahi taala lo bi loolu jàllee sëriñ bi daal dikk nag ci lim teggi ni sàkku xam-xam mu ne képp kuy sàkku xam-xam kat war nga fexé ba bay daw lor ab julit nga baña lor ben julit waye it nga farlu lol ci say farata ak say sunna mu akara nga farlu ci yoyu ta baña yexé julli julli farata nga bañ ko yexé ci lu ngant nga julli ci waxtu wa tayit nga tabé ci sa xam-xam ndax kep ko xamni kat dafa nay ci xam-xamam bala faatu yalla dana ko nat kon tabe gi ci xam-xam munta ñàkk waaye ànd ay ànd ak ay teggin ci xam-xam bi bokk na ci teggin yooyu mu wek xam-xam bi téere yami jàngee mu di ko màggal di ko fonk téere ba wala aliwoo ja wala kayit duwa mi jàngee mu bañ koy teg ci suuf te saa bu demee ca wana ba faj aajom ba noppi balaa laal bi téere bi na raxas ñaari loxom sopp nañu mu raxas wala sax mu japp bu mënee japp mo gën door a jëlaat téere bi tayit di màggal téré bi diko warmal lol nak nag ku koy def da nga laq ay yol ba tayit mu warmal ki koy jangal sëriñam bi koy jangal mu diko warmal ak diko ko ak diko ko ndax nee kat ki sàkku xam-xam njariñal xam-xamam mi nga aju ci ni mi màggalee sëriñ si borom xam-xam yi ni mu leen màggalee rek ci loolu lay aju loolooy tax mu mën a jariñoo ab xam-xamam kon loolu mooy xaaj bu njëkk bi buñ see daal dikk ci xaaju ñaareel bi incha allahu taala